lañuy wax al islah al moom la def réforme sociale soppiwaat yëf yi indi toogin wi kees la gane jamono dem ba am juróom-ñaar fukk ak juróom doon xalifa sëñ Tuubaa année quinze moom mhm. moom Serigne Saliou nekk koo xam ne lim jëfal lislaam ak melo yu doxin yu rëy am laxat kaana faqran lil islaami xaamiya motiyan mhm. sabila sabila nat bi ahni muhammada mhm. dafa nekkoon sagub lislaam di topp yoonu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon latifun sabuurun nekkoon aji muñ nekkoon koo xam ne ku lewet sos ay daara sëñ Saaliwu doy na ci rek ba lislaam sosoo ba suñu bisu tey bii benn sayqu tërbiya bu bàyyi fukki junne ak ñaar dongay tërbiya amul ku du sëñ fukki junni ak ñaar ci dongay laxasaay la fi bàyyi moo leen di dëkkal moo leen di wodd moo leen di dundal moo leen di faj moo leen di jàngal mu ne bu la neexee tax nga bëgg koo xam ne jour in chita fii ndookaa ba fii njuralin aw fii amaakinin oxra mis la xel kooma mis la xel kooma waaw nee na bu la ko waxee nga jaaxle demal kees daara fa nekk rek xel koom oh, allah mhm. kees daara mhm. xel koom di jàngal dongo yi borom yër mën na jàng nii ka annahu rahmatul lay ñaane mhm. moom Serigne Saliou te irham jami xel war a ja di ko bamtu ngir yërëm bindeef doon ci sëñ tubaab bu natt jógaa ba jëm ci njabootam mu dër dër loo ko ngir gëm boroomam mm-hmm. di dékku ay balaa ngir yërëm bindee fi wax ne lu dul lislaam aw ma ci defar aw ma ci yàq lu dul lislaam ma ci defar aw ma ci defar aw ma ci yàq Sëriñ Saaliw dund na juróom-ñeent fukki ak ñaar amee lu yàlla wenn waxtu fajarug àjjuma ki mujj fekk adduna joxe na waxtu bi moom Sëriñ Saaliw moo dégg wax bu rabbika ataa yeeg tey leex yi wallaahi mm-hmm. ba bi muy ñibbi àjjana kurus gaa ngi ci loxo moom Serigne Saliou yërëm ndaw ñi donn ci sëñ Touba wal basir bi la jataama dawaama ansim bi abahum ku laxi ni na nga ci man way jirimi seen bàyyee ngir yërmaale ju mat jooju nekkoon ci moom Serigne Saliou moo tax benn waykat da koy tagg moom Serigne Saliou ba yàgg mu ne ko nu baahi bihi bil adli wal almi wa tuqaa wa fi kawnihi lillahi lil xalqi asmaa sëñ Ablaye Jaxate ko wax na ko dañ lay puukare woo waaye lu ñu lay puukare woo ragal ragal yàlla ak xam-xam lañ lay puukare woo yow sëñ mhm. ci biir daaraam ñi ci génne rek mën nañoo xoolal li sëñ Saliou yu yar ci wu nit fi ne defar na ñooñ man nañ président man imam matub xaadi dib mufti moom sëñ Saliou sëñ Saliou yi ñu mu defar seen xam-xam egg na fu ne rabbaahum mhm. raqaahum mhm. suma awsalahum ila asisin muasin bil isharati doon ki gën a dëddu nit ñi àdduna xaachin dalilun dakirun raakixun sayidun safuuxun sadduuxun fil ragal yàlla foo ko fekk sa war ragal yàlla waa ngi lakk xol bi muy tuubal yàlla waxtu wu nekk di ñaan njéggalu yàlla ci jaam ñëpp moom Serigne Saliou yërmande bëgg ndaw bëgg bokkam bëgg lim na da caa boole yunfiq fadla maalihi wa yumsik fadla lisaanihi li rabbin yamlik nu ngoo joxe alal ba noppi ba boole kook noppi moom sëriñ Saliou defar ay kàngam nag taali taal ci réew mi mhm. may leen may yoo xam ne daa baawaan defari nit génne leen ci ko rek may leen i xéewal yoo xam ne baawaan na tey jii ba melew wu nekk am mu boole ko wéetal yàlla ci jaamu yàlla ak li muy doon doon mag daana taxaw guddi di naafile ba ay tànkam di newi ngir di wéetal boromam subhanahu ko taala ak liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la koy def mhm. xoola doomam ji Serigne Cheikh Saliou ci ngay jànge sëñ Saliou mhm. fu station jekk sëñ Cheikh def ko juma bàyyaali sëñ Cheikh yi moom fu jekk station rek sëñ Saliou sëñ Cheikh la koy def demal Touba Corniche statu Mbacké ba sëñ Cheikh lu ko def juma mhm. demal Mbour ñëwal fii Ndakaaru demal feneen fu biirab jekk nga naan boo ko defoon station wala nga def ko nangam sëñ Cheikh def ko juma ba noppi boole jaamu yàlla. boole jàpp njàmbooram boole nangoo liggéey. bàyyi bàyyi Serigne Bassir Abdoul Khadir. Serigne Abdoul ba mooy Cheikh Abdoul Khadir jii di Bagdad. mais xaw na ma dóor. Abdoul Khadir. nee na du may garmi. Hmm. ana Serigne Abdoul Khadir. <laughs> mu sëñ Moustapha Abdou Khadre mi nga xam ne nii tubaarkàlla bu musaana tàggu sëñ sëñ Moodu mu sëñ Abdou Khadre ne ko maa ngi génn danaan ko demal xam na fa muy dem du fa yàq dara ñoom kay mag yi ñu commandé Bamba rek la ñu commandé na fi mu ne nii la ilaha illallah livraison nar a metti rek euh, sëñ Abdou Khadre ilimaan yi ilimaan yi ne kooku dara ji mu ëndaale bi mu feeñee jamono sëñ Tuubaa dane borom daaru <coughs> bi nga koy wutalul dem ba dem gi ngay dem ba delsi koo fi dajal yàlla jéggal la ku la gis ak koo gis mm-hmm. Cheikh Abdou Khadir hmm. ku la hmm. gis hmm. ak ah, ku ko gis mooy Cheikh Abdou Khadir moom la ñuy tuddee imaamu imaam yi Cheikh Abdou Khadir sëñ ko bëggoon boo ko masaa woolu am na ñooñ dañ daan profité ci occasion bi bis sëñ bi naa ñëw ne ko foo tollu mu ne ko suuratul xaj sëñ bi ne ko ñu ne ci sil xijja nga toll ci suuratul xaj allahu akbar <laughs> Cheikh Abdoul Khadir jii li borom baxdaat dañ kii la rasulullah yi feeñu baxdaat kii moo tax kuy sikki sàkk gis rasulullah am nga loo xamul boo demee pavillon bi dana mi ngi nii fii la ko rasulullah yi fekkoon nekkoon sunni boo xam ne rasulullah rek la doon noonu mm. nuru ko ci lépp ci njax lax la nunu ko ci bëgg sëñ Tuubaa gi lépp di Cheikhul Khadim ci moom mm-hmm. sëñ Tuubaa bëggaloon boppam nag Cheikh Abdoul Khadim Mbacké dafa nuru yonent bi sax nga xam ne dafa boole woon chariatu ju ah. mat sëkk boole aqiqatu gu mat sëkk mm-hmm. mm-hmm. bari yërmande moom Cheikh Abdoul Khadim ah. lii ma la nett léegi ci Sëriñ Tuubaa ne daana mas naa wax ne dem ci julli muy taw sawara wuy takk ci bàmmeel te mënoo koo faj loolu moo ko gën a metti loolu Cheikh Abdoul Khadim bi tollanti na ko jëm jumaa ja ngelaw leeg taw beeg nangam mu naan déedéet loolu da doo lay sawar wu tàkk ci bàmmee la ko gën a metti te mu pexe ma ko mën a fay Cheikh Abdou Khadir ku ko mas laaj mu jox la ba noppi dig la Cheikh Abdou Khadir du jox kenn rek bàyyi la dangay ñëw am yitte téeméeri junni mu jox la téeméeri junni ba noppi digaat la téeméeri junni du la lebal yërmande jaa taxoon mu masaa tëju dana ku jaan matt baa jigéen ju jàpp nañ ma fëgg mhm.